Santi sant yàlla di julli ci yant bi sallallahu alayhi wa di la sant di la gërëm waaw falu nag mbiru yàlla la mais ku nekk am nga loo mun ñaan yàlla ba mu yàlla ba yàlla may la parce que sunu borom tabaraka wa taala baata onsi billahi moo ne malikal mulk kon yàlla mooy jox nguur ko neex mais di dina am fu mu jaare yàlla ba lim bëgg pour defal ko nit ci wàllu falu sunu borom dina ci ànd ak moom ci loolu parce que lépp ñun ñoy do ñun ñoy représentant yalla si kaw suusi lepp mi ngi ci doomu adama yi mais inshallah allah ku bëgg falu wala nga am loy xëccu si katanu yalla suñu gisante dinañ la fal ci katanu yalla falin bo xamanteni ni yow sax dina la yëm ci katan ya parce que kurus moy ñaan nit mun nga ne mun nga ko ne tur yàlla bi boo ko dee liggéey nangam nangam fekk istijaab du du nekk ci moom mais nit boo jaamoo yàlla sell ba sunu borom may la istijaab nga déggoog yàlla loo bëgg ci yàlla soo ko ñaanee yàlla na ko ñun nag ñooy seetu ëmuru boobu jalañ ku nekk xamal ne diggante ëmari boobu ja ak dëcc fa njoogu moo ko ñaanal ba mu tuddee ko doomam ëmari ngoone sabal ñu ne kooku mooy sunu maam incha allah rabbi lépp lu waay soxla ci wàllu lasraar ci kàttanu yàlla bu ñëwee fii dinañ jëflante ak moom ci kàttanu yàlla. ah man de xam naa ci benn affaire ku ma jëflanteel bu soobee yàlla naa la fal naa la fal ci nii wala ma fal la ci naa ci kàttanu yàlla incha allah rabbi noonu ci tur ci tur yàlla lañ lay fal parce que tur yàlla boo ko ak lenn parce que nit ñi bëri nañ lu ñuy jëfandikoo xam-xam yu ñuul yi fekk soriwul mais nit. looy jëfandikoo yàllaay borom lépp moo moom lépp moo bind lépp lu am kàttan ci kàttanu yàlla ngay doxe nit boo bëggee lu dëgër ci kàttanu yàlla nga koy nga koy jaare su ko defee rek suñu borom ne la ko may ci kàttanam waaw xam nga àdduna bi nit ñi dañoo am lu ñu desee xam xam nga suñu borom tabaraka wa taala dañoo bind ba noppi am yeneen yu ñu booleel gis nga bëri na sëy yoo xamante ne ni ku góor ki am na àndandoo wala ku jigéen ki am na àndandoo su ko defee rek mo andando bob moy firante ñaar ni sey bi ciow rek suñ sorante dañuy namante way bu ñewé rek ciow ñi nga xamanteni ni bëri na ci xalé yo xamanteni seen xel fay nakari wala problème bopp yo yu ci upp rab rek mais inshallah rab si kàttanu yàlla fu ko fekk duma passé ak mom fukki fan ak jurum même bu doon dof bo xamanteni dafa dof bay yëy sëgaram nga xam dañ ko liggéey wala nga xamanteni ñu ne ki rab moko japp ci si yalla da fukki fan ak jurum dina ko ak mom ba mu set wecc bu dem liggey ci kàttanu yalla loolu mom amul ben jafe-jafe ci kàttan la lu yalla may la ci kàttanam wa sant yalla rek du julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne sunu borom tabaraka wa taala mo ne ad'uuni astajib lakum ñaan len ma dina len may yonent bi ne sallallahu alayhi wasallam ne usila ul mumin ñaan moy gànnaayu julit kon damay digal ñepp rek ñuy ñaanlu di ñaanal sen bop di ñaanlu tay saraxé suñ ko dé def rek suñu borom ne la mën di jappal ne leen mëna mussal ci lu bari dal ci carton yalla waaw sama numéro téléphone 77 543 42 39 wala 76 908 67 63 wala 777 16 28 waaw maa ngi ci géejaway cité sofraco boo ñëwee ba dépasse amo 6 bi rek bala nga agsi Euh, si si police wàqi naan bi rek incha allah rabbi maa ngi foofu soo ma woowee rek naa la orienté ba nga ñëw ci man ci kàttan yàlla incha allah rabbi sant yàlla rek di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla yàlla may ñëpp jàmm képp ku feebar yàlla nga wér képp ko sa dëgër yàlla na ko sunu borom saafara barakati laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu